damay jël entrepreneur mu dem leb banque ñëw defar wëlbati ko jaayaat la loolu fa ban logique la am ban logique la parce que entrepreneur boo ko laajoon amul benn budget banque lay dem leb ñëw ñi nga xam ne daf ñuy tabaxal ñu tabaxal suñu bopp ba pare mu ñëw ne léegi si la ngeen tabax doyuma damay toj la ngeen tabax uti entrepreneur mu tabax wëlbatiku jaayee leen parce que foo gis ci marché rek euh, nit ñi ñoom moom seen cantine ba convention la ñuy def benn bàyyi indéterminé la ñuy def mairie bi mooy moom suuf si mais cantine bi commerçant yi ñoo mom kon buy toj day waxtaan nit ñi am no ñoo ne jot nañ ci investir des millions te dafa ñëw danel ko sans état d'âme te en plus ne na ku ko jox xaalis mu jël. maanaam ku ko jox xaalis mu jël c'est pas ku ko jox mu jël parce que am no ñoo ne verbalement la leen defal parce que nit amul ben nit bu wayee di ñëw ci benn illégalité. ne dama fay investir des millions en sachant que ëllëg dañ koy toj ken nit waaye du wul non. non c' mais c'est de l'arnaque. L'arnaque l' arnaque weesu wut nga ne yow la nga défal doyuma yow commerçant bi na la nga défal doyuma damay ut entrepreneur mu défar ba paré wëlbeutiku yow mi mom cantine mu ne dama lay jaayat ana logique bu am foofu. parce que y a des ces choses yo xamné dafa xew ci marché yi té il faut nit ñi di alerter anarchie totale.

Maire yu bëri Dakar ce sont des maires par défaut parce que euh, en voulant sanctionner le euh, état bi moo tax maires yu bëri nekk ci maire ñu ci bëri parce que koo ci gis et puis man maire yi yéen ñii yéen ñii journal xam nañu jeex na bu yàgg man maire jeex na bu yàgg prolong fi mu ne nii amul kenn koo xam il est dans l'égalité bay daaneel lu day na marché HLM li tax marché bi toy euh, kiiw ñu commerçant yi dañ ma déggal marché HLM mosu leen fi dégg dara kérok biñu ñuy ambulance yi sax dégg ngeen ñu yuuxu mais dama ñëw ne leen nit ki do leen nekk ci euh, dara ba paré di wëlbatiku defaat leneen mbas mi moy priorité bi ñom état bi buñ ñu deful mi priorité bay mobiliser la police nga xam police dañ ko waron mobiliser contre la pandémie ñuy mobiliser la police di toroxal ay doomu adama en plein pandémie ah lool damay laisser population bi ñu apprécier parce que tout le temps injustice yooyu am il faut nit ñu yuuxu ñu doo def da ngay ñëw ci marché marché boo gis doo am norme de sécurité marché yi ñu naan ñi ngi tëj marché yi gisul leen benn marché boo xam ne dem leen dimanche ngeen wër seen ndax gis nañ marché mus ngeen gis depuis que le monde est monde ñu ne dañuy toj marché lu day na a marché HLM gisoo sous préfet gisoo préfet gisoo gouverneur gisoo descos ñëw biñ ñëwee vandalisme yi lañ njëkk a def dañoo indi ay agents Senelec ñuy dagg kii compteurs yi vandalisme yi lañ a def nit bu fekkee da nga nekk ci dëgg

aduna bi yëpp di xeex mbas boobu yow nga ne déedéet damay wëlbatu ci biir mbas boobu ñi nga xam ne daan nañ def góorgóorlu di dem di lijjanti tuuti di jox seen njaboot ma xañ leen ko toj ko je peux dire avec la complicité de l'État ndax blindé blindé police kenn du ko génnee sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur mais gisuñ fi kenn nit aussi booy ñëw man personnellement sommation verbale la ma def il m'a appelé ne ma yaay sëñ diw ngañ sax la moo yaay ngañ ma ne ko boo xamul sama tour ma raccroché mu ne ma yaa moom kantim nangam ma ne ko waaw mu ne ma euh, mus nañ la jox sommation interprétative ma ne ko musuñ maa jox sommation mu ne ma damay toj sa cantine ñëwal léegi fekk ma sa kër ma ne ko boo ma soxlaa yónnee ma une convocation ma ñëw ci mairie bi fekk si la mu ne ma déedéet sama kër nga may fekk ma ne ko du ma ñëw sa kër je l'ai raccroché au te bu du toon asam ma wax ko leneen nit ki nag personnellement j'ai investi plus de 4 millions ci sama cantine soxna Mamadou Thion il a investi plus de 10 millions et quelques avec caméra de sécurité il a eu l'autorisation de construire parce que doful dina jàpp ko Modou la yàgg extérieur xam na lu baax xam lu dans l'illégalité maire bi jox ko autorisation mu tabax bam tabaxé mom en personne dem na ba ci maire bi ne paréna bam le félicité ko ci yim def comprendre nga nan ngay ki nga xam ne entrepreneur bi nga xam ne yorul xaalis pour def la yow nga defaral sa bopp nga wëlbatiku ne ñëw damay toj parce que li ngeen defar neexuma damay defar moo neex parce que la ngeen defar gañewuma ci